waaw te ñu joxoon convocation CNG tey nax samay supporter waaw làmb dafa jeex ñu ñu sànni ay ay ay chaise si biir stade bi waaw loolu moo waroon sama teewaay tey. Mhm. ba ngeen euh, duggee waxtaan ak ñoom est-ce que am nga benn consensus boo leen trouvé. waaw trouvé nañ benn solution pour euh, ma jël ay ay kii lu sax. ay menuisier métallique pour ñoo defar chaise yi chaise yi ñu yàqoon waaw ñun d'accord nañu amul problème nañ ko def incha allah. yow yaa jël sa waaw incha allah loolu la ñuy def waaw loolu la ñuy def. Mhm. ñaata chaise la. non yi xamaguñ ñaata la de. mais dafa bari. non daanaka est-ce que bëri bëri warul bëri de xam naa ay dix quinze lay yem. Hmm. Mhm. tey nga gis loolu noonu ban message ngay lancé duñu wax say supporters. Mhm. ñi nga xam tey ñoo ñëw di supporter di ànd ak mbër ndax gis nga tey ñoom dem nañ bàyyi la yow mbër mi. Mhm. yow yaay jëlaat sa xaalis def ko ci tey ban message ngay lancé. waaw dina supporters yëpp laay wax ndaxte làmb ji stade suñu stade la bu nga koy yàqee tamit ñun suñu bopp lañ yàqal di wax na supporters yëpp ñëw si euh, non à la violence bu làmb jeexee. ñu dox nang dem ñibbi ba stade bu ñu yàq ndax stade bi suñu stade la bu nga ko yàqee ñu lañ yàqal waaw loolu laa leen di euh, loolu laa waaw pour ñu dégg ko supporters yëpp képp kuy ñëwate stade arène national bul damm 16 bu fi yàq dara seetaan laa mu jeex mu jeexee nga ñibbi. Uh-huh. ba nga bëree ba tey ci loo nekk parce que Ada gis nañ ne da nga bëri ba pare coow li gën a bari. ñu gis mbër yi ba am ay grand yoo xamante ni sax te bu ñuy cité dañuy wax lan nga gisee loolu. loolu sant yàlla rek ak lu ñu liggéey ak lu ñu gëm ñun mbër yëpp lañ fi nekkal nekkal ñu fi pour kenn képp ku pare pour bëri ñun pare nañ pour bëri yow mais du ñu wax benn adversaire. Ada Fass keroog sa combat dañu gis da nga ñëw indi waa Fass ñu laaj ci Gris Bordeaux seet gëm xam naa ne seetaan nga vidéo bi tey nga ñëw indi bàkku Fass ñu jël say photo jël di ko comparé Gris Bordeaux ñi def nem si yàlla Père Mbaye Guèye di ko ñaanal yàlla fi mu tëdd dàqal ko fu mu jógee ñi def Père Tafa Guèye lan moo waroon tax nga gis lan moo taxoon nga def loolu. waaw daanaka ñun ay doomu Fass lañ dañoo judd gis laamu Fass suñuy maam di bari suñuy pap yi di bëre suñu jaar bari te cosaan dafa nekk Fass laamu Fass la cosaanu neexut a dégg nag mais Fass la sosoo. waaw ñun lu ñu indi si làmb dañ ko war a indi te incha allah li si kanam raw li bët incha allah. hommage boobu nga def dafa nekk dafa yow yaa jékki-jékki rek créé loolu. donc Mbaye Gueye suñu maam la Mbaye suñu maam la jamono yu mu doon jamono yu mu yor Fass dëgg dañ ko doon seddaan mu yor gars yi di leen ko seetlu waaw lu dëgër da ko ñaanal yàlla yàlla suuf ayof si kawam. tey boo toogee ba ay Gris Bordeaux di yor sa Père Tafa Gueye nan lay def si yow te xam naa ne gis naa ne seetaan nga leen. Hmm. waaw Gris suñu grand la suñu grand bu baax la ñu ngi koy nuy au passage suñu papa Tafa Gueye ñu koy nuy au suñu Père Tafa lépp Fass la ñun ay doomu Fass lañ waaw ay doomu Fass lañ. Hmm. instant bi xam naa ne promoteur yi moom ñu ngi lay contacter. problème ñun pare nañ pour bëreeg ñëpp képp ku pare pour bëreeg ñun pare nañ pour bëreeg yow. waaw baa ñu benn mbër. Ada Fass dama dégg ñu ne ci kaw. yow sax yaa ko wax am na booy yi fi nekk miska Ada Fass ba tey day bëgg mag ñi may ko chance wala mu bëri mu bëri xotteeku yi ndax gis nañ fan yi affiche gis nga ko ndax da ngay dund làmb. non man sama làmb dama dama dama bëri samay morom samay premier combat ba léegi samay morom laa bëril il temps ñi si kaw même sens mu bëri ñoom waaw il temps ñi si kaw même sens mu bëri ñoom. ñi si kaw comme ñan. ah mbëri lim tur. waaw bëri nag ci kaw. Mhm. mais ah, nekkoon da ngay taamu adversaire ndax à chaque fois bu ñu la waxee nga ne dama am staff mais tey Ada tey bu ñu la waxoon ñaari mbëri yoo xam te ne tey bëgg nañ Ada Fass tey ñooñu bëgg na ñooñu may leen chance ñu nekk ci kaw ñaar ñoo xam te ne Ada bëgg na bëri ak moom nekkul da ngay taamu adversaire mhm. wala da ngay da bëgg a bëri ak ñoom mais ñoo xam te bëgg nga bëri ak ñoom pour ñu may la loxo. non man du ma adversaire du ma adversaire nañu may chance rek ñu bëri ak ñoom. waaw nañu may sax non ma du ma du ma lim tur Jackson Junior gis naa affiche bi. dëgg ma ne bàyyi ma fi benn mbër képp ku pare bu bëri man pare naa bu bëri ak yow. loolu boo gisee dama ne Ada Fass loolu moom bu ko gars yi de parce que loolu moom euh, Jackson dafa am doole macha allah nekk si am ñeneen ñu mu bëri te Ada Fass xam naa ne camp boobu moom bëggu man doole daanu ma man doole ma. képp ku pare pour bëreeg man am naa sama staff am naa sama encadrement waaw du ñu jokkoo ñoom bu ñuy waxtaanee ba juboo man pare naa pour bëre. Mhm. mais dafa am bëri yoo xam dañoo kon ki ma la wax rek xam nga ma xam naan Ada Fass xoolul foofu ñeneen ñu ñu gën a kii lay xool. non man <laughs> ku kooku sax xool naa ko si làmb man aw ma lu may ragal si làmb oh. waaw mais sama staff lu ñu décidé rek man pare naa pour bëre quoi. Mhm. sama staff laay déglu ak sama engagement. Mhm. Mhm. dafa am bëri Liss Ndiago nan gisee combat waaw làmb bu la làmb bu neex la. ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ. waaw ay bërekat lañ. làmb ju neex la làmb làmb jeunesse la ko day neex. Mhm, làmb bu neex a neex la. avantage bi ci kan la la nekk. non ñaar. non ah, ci kan ñaar ñëpp ay ndaanaan lañ. waaw ñoom ñaar ñëpp ay ndaanaan lañ. Siteu Papa Sow laa bëgg nga analyser ñu combat loolu tamit combat njër ndem la Siteu Papa Sow loolu làmb wu làmb boobu dara du ko si làmb ji ndaxte làmb jooju Papa day bëgg a wane boppam te Siteu tamit dafa bëgg a wax wane tamit fu mu jëm si làmb te làmb ju neex lay doon. Mm-hmm. ñoom ñaar kan moo gën am kii euh, kan moo ëpp bëre ñoom ñaar. non ñoom ñaar lañ Siteu bërekat la Siteu ndaanaan la neex la. Mhm. combat boobu noonu euh, euh, waaw baax na combat boobu noonu ñoom ñaar kan la defet arrangé wu. non ñoom ñaar ñëpp defet arrangé wu leen ñoom ñaar ñëpp moo tax mu nar a neex waa ñoom ñaar ñëpp ku si nekk victoire ngay ñëw si làmb ji waaw du yomb combat bu neex a neex la. Mhm. Tapha Tine Boy bu dul am la tamit combat boobu bu garaaw